li waral woote bi nag c'est juste pour indi ay leeral ci li nga xam ne xewoon na temps yàlla ñu koy wax ci deru isek di leen xamal ne ñoo ñoo koy def ñooñu ce ne sont pas des employés de lisek maanaam ISEG amul benn contrat bu leen lii ak ISEG ay anciens étudiants la woon yoo xam ne ISEG Diop président directeur général moo leen mayoon bourse gratuitement

may xamal sénégalais yi nag foo leen mos gise gisee étudiant buy laaj salaire wala travailleur moo war a laaj salaire ou bien étudiant moo war a laaj salaire. amul benn contrat bu travail bu leen lii ak boobu man si ancien étudiant yooyu laa bokk damaa bokk si seen yooyu rek man si ancien étudiant samay moroom ñoo fa nekk samay morom ñoo ñëwandoo ISEG amandoo licence ñenn yi ba léegi soutenir ñu dañuy créer seen 30 million rek tey ne 8 mois suba ne 15 mois waaw loolu moom ñooy ñooy bind rek. mais damay limay xamal opinion nationale bi ak internationale bi ñooñu ay anciens étudiants lañ yo xamné ne lañ leen dimbalé gratuitement amul ben impact ci institution ci institution bi amul ci ben impact les cours fonctionnent bien étudiants yi ñoo ngi jàng normal wa étudiants yi ñoo ngi ñoo étudiants ñoo ngi jàng normal professeurs yi ñoo ngi def seen cours yu normal wa étudiants yi ñoo ngi fay normal aussi professeurs yi ñoo leen di fay amul ben impact ci lolu Covid bi la rek ku nekk di def cours cours à distance loolu rek